loolu benn respect si doomu aadama yi seen dëkkandoo dinaa si mos a ñuus leen de seen sonal Waaleykum salaam. Singom fii la dëkk. Oui, la maison de Singom. D'accord. C'est qui? Je m'appelle Hasna. Hasna. Haritam. Hmm. C'est copine de pour xarit nii wala doo dàqe loolu laa mbéy yooyu. léppam la. ci si ngoom moo fi indi ku nekk de. ah de moi. tu es là. <laughs> ah je vais bien avec Ça va très bien. T'es bien sapée là. Merci, comme toujours. Je t'aime bien. <laughs> Eh, j'espère je que t'as pas eu de mal à trouver la maison. Bon, l'autre était plus accessible. waaye chapeau chapeau mais bon euh, tu sais fële ak ngéwél bi xam nga ñun dañu bëri bruit jàppal bàyyi des fois ñu ci sabar yi ak suñuy yëngatu tu vois voisins yi dañ doon kaas rek. <laughs> ok ah, encore si ngoom yow. tu vas bien. eh eh laisse-moi juste fermer la porte. waaw par fermer la porte ah, eh, eh revenons si si ngoom yow xam sa ñàkk xam sa bopp moo tax nga naan ñun dañoo bëri biir yi ñun biir yu lan xam yow si ngoom si biir yu nga judd.

damay xool si kii. non mais ci man gel bu mool bu nekk doxal naa ko présenté ko da bàyyi. mais warul sa bàyyi je connais moi. génne archive ah di jaay nga respecté ma man bàyyi di wax a eh, man. la gueule nga naan ma respecté ma. yaa ngi tufli wa si nga ma. yaa ngi tufli sama princesse te loolu. si nga kii bu si nga kii bu ko sama tufli laa daa war a dee. loolu euh, en ce moment mën naa la ci lekk. ma lekk parce que kii c'est toute ma vie. si nga doon ma de. si nga ah gis nga xam a laa bëgg. Hmm. ce qui di mel ni yëkkati film boobu la génn kër. loolu loolu je te je te permets pas. non attends li jaay tey du ma làkk wala français la je te permets. parle avec moi. Euh, eh parle avec moi. petit mot. nga wax ko suma ja suma suma princesse. suma si nga wax ma petit mot grand mot laay wax. gis nga kii. Hmm. du. baadoola. waaw ñun ñooy baadoola ñun ñooy baadoola yow yaay puudux laay wax doo gërëm ñam daaw. waxuma loolu de loolu yow yaa ko wax mais dama ne kii du baadoola 500000 yooyu nga ma triandé woon kii moo ma ko joxoon kii elle est ma vie she is my life I love her so much. kii bu ma koy xool damay du ma taxaw benn place. dëgg la damay damay def lu ma neex. xam nga la moom neex ci yow. Hmm. da ngaa mën a sañ si xam lu baax te say bët la nëmoon Aïchina ñun ñi la may jeton gir yoo dañuy dañuy ruubi li ñu la wax ni yëpp ay dëgg ay fen kase la entre entre entre entre Mami? Mami? Pardon, ma grande sœur. La plus belle. man dig ma ray rek. Bonjour, ça va, madame? Ça va bien. ça va. yaa ngi ci jàmm. merci ça va bien. Euh, mami. Uh -huh. Hasna. Hasna. c'est ma fiancée. ok Hasna. Hasna Hasna. Hasna wala Hasna. Hasna. Hasna. Hasna. yaa ngi ci jàmm. merci jàmm naka tàngaay bi euh, ça va. ay fichu. bâche nga mi ngi lay toppatoo. bu baax ah, ah alhamdulilah ça va bien. Euh, kii. c'est ma grande sœur mais bon euh, mën naa wax ne. suñu diggante man ak moom dépasé na foofu. kuma que grande sœur di rakk yu baax rek. donc je l'aime mais je t'aime plus que tout le monde. loolu neex na. Ashley comme si nga elle m'a naa bi moo tax ñu ci ba mu fi toog ba léegi. mi ngi reetaan taarikàlla macha allah ñoom laa bëgg a maye ñoom ñaar dimanche bu soowee yàlla. mu tàgg ko fàtte yàlla. nijaay doomu jàmbur nga bëgg koo may yow kay yaa war a dem ñaani waxtaan ak ay waajuram ñu may la ko. moo tax ma ne la technologie bi bàyyi na la fi. man technologie. whatsapp ma vocal bàyyam ne ko may naa leen mu mu bii ma tontu. yow ay kilifa doo dem ba seen kër nga waxtaan ak ñoom. ñooñu loolu jamono ji moo départ foofu. est-ce que kii kilifa ba muy ñëw kilifaam yëg na ne. day ñëw fii léegi si whatsapp mën naa vocal papa ku jigéen ki mu may la imam bi whatsapp nga ibbi seen groupe créé fa may même sama jàmm kii avant ngaa ñëw lu nekk mayante na nga ko fii moog singo ah, ah, ah lu mayante fii mun maa compte na maye leen kii ah, xam ne jàpp na singoom fu ne fii laa nekk dim yow singoom ah ay maa xam nga ma singoom xam nga ma xam naa la xashinaa xam nanu <laughs> yàlla yaa xam lu baax de ani Bousso euh, Bousso Bousso vienne vienne uh-huh. hmm, jigéen la jigéen vienne nga xëy wax góor nga naan vienne bu nekk ma ngoon ko vienne ew waay su ma di jaay ngay xaar vaar leen ci biti. mais man je ne suis la bul bàyyi ba ma dem jox sama xol keneen di bëggante ak moom def ko sama soxna indi ko ci kër gi ngay def sa truc de jalousie loolu seen jikko la yéen jigéen te comme on le dit wolof jigéen jigéen ay garab garab bàyyi sa kii mooy gel bu ma bëgg a may xanaa information bi leer na. Salut. sama doom la xel mi moom neexul fan yi dégg après naa la vocal expliqué lu ko lu ko teg mami léegi mu dem man xam naa ordinateur yee ko sax nag kii waa waa waa cyber xaw ma lan lay liggéey léegi xaw ma ñëw ah kenn daal laa xam ne mën nga jàppanteeg moom def ko sax xarit muy astu ñëwagul daa génn mooy doxat bi waaye nag fu ngay nekk si ngoom mu lay jàppal nga koy jàppal bu mu ko yëg bu ko yëgee adduna bi yëpp dina leen ko fenn fekk man daal te benn benn feebar la mooy lu mu yëg mu siiw. dégg nga lu des nag ay GGR. waaye sunu ndijaay waaye. Ah, dëgg la. te géwël. Mm-hmm. boo déggul. Mm-hmm. mënoo sant boo ko si askanu géwël. bàyyi waaw. man loolu man dama ñu ma seen i si ngom. Mm-hmm. seen nijaay laa. mais damaa xam lu neex. xam lu baax. bëgg. mo yow yow da yow may lii sama silaabeer man may li ah si <laughs> ngoom gis nga géwél bu buggul lu baax amul fenn te maa màggitub géwél ku ko jox bopp nag def nga la war kon man mi bu ma la indilee as naa def naa def nga lu la war ju dàq si àdduna géwél yee ko am barki yonent bi da géwél boo gis moo gën a bëgg boppam géer barki yonent bi géer a doon géwél léegi sama papa mbay Ah. moom songu ma rek lay woy wayaatu fi blocage uppukaay nag dina indi ngelaw waa man muy ëpp eh, mais sama jàmm lool amul amul amul effort de créativité xanaa kon moo papi coppe moom daa xam lan man c'est eh woy la kat. loolu moo tax loo yu yaa ngi yaa day sama sama sama jabar ji xamul lii. loolu rek la woy lan lan see see la. yow calab lalab lee di ray nit ñi papa ngi mbay jëy faye ko ko Pape moo ko gën a ni Pape Thiop ba tër ba setaan ko laal bay du maate du wokk dafay sa waa ji yëral coqali. yëral coqali fii ramba. co coqal. na coqali. rek kon yow loo xay waaye nag consommé local ah bi ne fi di woy li ci mbëggeel di def lu ko eh, eh, eh, may woy ay Aminta Bassan Wally inspiration jeex na nu mu jeexe la la dese woon waaw tapatabari dibi dapati ba ci bi daa tabari bi de ma yaral yàqal ba noppi nga jàngal cër cër nijaay cër ba pare nag. ma nga sawar bay bëgg a dee. ay ay ay saay saay waaye saay saay la la maison de Guiriot. la il faut faire ça. Eh, il faut faire ça yow wan ma sa miga eh eh ida wan tan yow nga ma ni nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni mais soxna si macha allah sa taay rafet na. xool nga ma ne sëñ bi. xool naa la ah, maa ngi jëm de maa ngi maintenir sama forme daal. mais booy demati sport yóbbaale ma. yow da nga may nuru yambar de est-ce que mën sport. ban yambar. en tout cas naa la bett yow l'essentiel mooy yóbbaale ma quoi yow. pas de souci boo rek man pare naa mais yow xamee wu ma la sax si koñ. Ah. waaye c'est vrai nag bi ma jógee vacances yàggul nag. mais enjoy your holiday. merci beaucoup. c'est Omar. moi c'est Oui, ma nièce. Comment tu vas? naka Sénégal. ah Sénégal a ngi nii rek de bali problème. ah mais Sénégal dëkk daxu ko de. Ah ben, je t'appelais à propos. Um, un projet. Mm -hmm. euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. En fait, je voulais rentrer définitivement au pays. yii tombat bu la ko dara jaral. Galsen li nga fi bàyyi woon démb ak bërki démb ba tey mi ngi fi. Sénégal moo ñu gën a soxla que que France présentement donc euh, il faut que ñu ñibbisi. waaw euh, c'est pour participer au développement de notre pays aider les jeunes au moins euh, si côté emploi et tout ça donc. Euh. ok. Euh, d'accord dans ce cadre sax bon je dois te confier ay quelque chose ay démarches yoo ma war a defal foofu. ah loolu amul benn problème man moom bi yaay sama tonton loolu moom c'est avec plaisir. waaye si côté administration pour euh, les papiers et tout ça. d'ailleurs euh, je vais t'envoyer un mail comme ça. non t'inquiète loolu amul benn problème man déjà sama connexion du fay 24 heures sur 24 maa ngi connecté wu mail envoyé dinaa ko jot. ok ani sa sa sa ñoom nijaay ñoom pour le moment ne ne les informe pas ah ñoom dinaa leen informer mais juste au dernier moment. waaw d' accord. on fait comme ça ah. merci beaucoup. ok bye bye. waaw d' accord ok. yow xam nga yow man sama xarit ah yaay sama neer man maay sa poobar bu ma la safalul kan moo lay safal. jaruma baab dama lay baab ba sàmb di si demba ba man yow laa am. man bëgguma nga mer ma sa boo meree mën na maa énervé ma lekk tali bi appuyage dootul am te loolu laay bañ. soo bañee ku la mere kon nga wut feneen fu ñu nekk waaye fii moom. sa papa gis nga man lii nii xeeñaay bi du man xale yu góor yi la. saw ko ba ma xeeñ xunn man war na ma la fee dëj sa personnalité dépassé na di toog fa genre moo yaasin gi pour romb miir rek taalal fa seen geen gi xër xër xër xër xër xër ba naan déet miir yëpp daanu nan ndax ñoom kenn amatul voie publique boo toog di fa dund oxygène bu neex ndax fépp lan xeeñal nan nan nan nan suis ah, man boo gisee nu ma def tey xam ne avec plaisir laa cherché gi nga nu ma def nga xam ni man ñëw ma tey pour nga mu nga mer dama ñëw pour nga bég moo tax ma indi la paix sama balan laa def dóor sama nuyu ci kaw waaw tey kay moom xamul lu xew waaye ah. rouge bi dañ na. ah boo xam la boo solee rouge di énervé doo changé couleur. tey noppalu xamoon ni sañse man maa si toog. Hmm. à l'époque. Hmm. à l'âge de dix huit ans. jàpp dix neuf ans vingt ans. sunu waa koñ ba ñoom ñëpp mobiliser woon na zone koñ ba dem pelente ba ma wuy jee ñu tëj ma deux ans ndax mën a sañse ñu ne ma wàññi sa mën a sañse yi. nee na ma éviter sama sañse moo tax ñu tëj ma deux ans. ñu tëj la deux ans ndax sañse waaw damay ndax mën a sañse. moo dundee foofu. ay caleçon yu xasaw laa doon def foofu ak ay eh. ba ma génnee laa jubal fëgg jaay nekk marché Thiaray gaar ba jënd sama. ci ah looy def. boo sañsee ñu tëj la doo sol fëgg jaay jàpp sa ñàmbur. <laughs> nan ñu bañ laa ah, ah, ah te muy dëgg ba daa bëri yoon loo sol dafa rafet. di gis nga Paate Kayre. Mm. yàlla na ko fi yàlla yàggal. moo jël yére bi jox ma ko nee ma dee ko sol lépp loo xam ne farata la del sol yére bi. kon nag bu ma sori xam ne sama farata yi nga bokk. ko sama kër gee laa lay yóbbu ñu nekkal ka fa. na ah ko eh programme mel ni feraguma de. tey ah feere su ma la xee ma nga war a xam ni kon dinaa ñëw demander poitrine ah yow yow yow may ma sama jàmm man nu may nekk ak yow di am la sama ñàkk fay yow yaa koy gis nax yow laa bëgg bu ma amoon lu ma gën a dëggantaan dama toog xàpp xel gii nii ku romb gis nu dama lay yóbbu sama kër waaye wax naa lu fa nekk sa kër yi mënu ma faa dem waaye yàlla moo ne mag boo ko suturaalee suturaal sa bopp mu suturaal la. mooy mm. la bu am na yeneen endroit yi fi nekk. mais ma sama jàmm waaw waaw je trouve parce que dégg naa booy naan di tey bu ñu ak seen gel naan ko nan dem auberge nan dem auberge. auberge waaw. yow da nga def wala da nga naan kaay. même pas yow est-ce que xam nga lu auberge. mooy foo xam da ngay dem féexlu. di naan sa soow yéen saa naan sa lëwal naan sa dërëm teg sa tarxees. wuy ma bu ma jàppee sa dof dégg nga. Hmm. gis nga man bokkuma si kat yooyu ngeen di yóbbu auberge. yéen la moo tax jigéen boo leen gis rek defe ne dafa yomb la moo tax jigéen boo leen gis rek defe ne ngeen ko yóbbu auberge rek du ngeen mën a nekk ak moom. Hmm. du ngeen bàyyi seen xalaat yu ñaaw yooyu eh, noonu. Eh, eh, man fooy la yéen la ngeen bon yéen. bu ma waxati waxu auberge de. du mas sa taxawaalukat du ma sa ñàkk fayda bi nga yóbbu auberge boo leen jógee rek naan auberge auberge di ngeen di bon. Fatou kaay